Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi ànd ak programmes de Salam euh, Vision une télévision au cœur développement tey ñu ngi dalal dans l' émission les coulisses politiques coulisses politiques dafa nekk euh, une émission euh, boo xam ne dafay waxtaan jafe-jafe ak rëqum politique fi diwaanu Sénégal ak li ko wër tey ñu ngi ñuy wax Serigne Saliou Gueye di ndaw moo xam ni mu ngi yëngu si parti Idrissa Seck mooy réew mi Serigne Saliou asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu. Hmm. di nuyu Sénégalais yi ñuy déglu. Hmm. ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew. di nuyu kilifa diine yi. Hmm. di ñaan Serigne Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool. di ko ñaanal mbokkam yi mu bokkal diine gi yëpp di ñaan suñu borom dool di jàmm ci Sénégal. sëñ Saliou Seck euh, dañuy dugg si biir waxtaan bi euh, le président Idrissa Seck actuellement mooy jiite le haut conseil. économie sociale et environnementale mm-hmm. nekk kàngam politique bu mag fii ci réew ñëpp xam nañ ko mm-hmm. kenn euh, du ko lam-lamee question ma la njëkk a posé yéen loolu gisee tey l'entrée euh, d'Idrissa Seck à la tête du Haut Conseil waaw loolu question bu am solo la tey dinaa ci sawar a tontu bu baax mm-hmm. comme ni nga ko waxee waaw yaakaar naa dugg président sa Seck ci mu euh, mouvance présidentielle bi bokk na ci li ko waral loo xam ne euh, am na ci ay cause yu yu yu immédiate yoo xam ne yu xew la hmm. Sénégal yëpp dundandoo ko lu mel ni wàllum mbas mi boo xoolee mbas mi bi mu duggee ci réew mi ba léegi dafa nërmeel suñu économie suñu économie dellu ginnaaw jafe-jafe yu yokk jàmbat yi yokk te loolu ba mu amee président de la république dafa dajale toute les forces vives de la nation hmm. woo leen ci ab waxtaan ci ñu xool nan lañ mën a àndee ngir mën a xeex mbas moomu noonu. Mhm. loolu bokk na ci li tax président Idrissa daal di ñëw ci mouvance présidentielle bi ngir apporter expérience am apporter expertise am pour ànd ak le président de la république ñu ànd gën a mën a jàkkaarloo mhm. defi yi na xam ne moom mooy interpeller le le Sénégal. Mhm. boo xoolee ci sous région bi am na ci ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne suñu yenn dëkkandoo yi ñoo ngi koy dund lu jëm ci wàllum xeexum terrorisme lu jëm ci wàllum. instabilité sociale bi ñu gis ci classe politique yi nga xam ne ñoo ngi ja euh, xiiroo ngaayoo yooyu yëpp di ay jafe-jafe yoo xam ne boobaak léegi suñu borom moom ñu ciy suturaal ba ñun Sénégal dundaguñ ko loolu moom moo tax nag en tant que homme politique mu jël ay responsabilités ngir mën a fexe ba loola mu bañ a am Sénégal. Mm-hmm. parce que ñoom bi ñu demee ci élection présidentielle yi li nga xam ne moom la résultat yi wane. mooy ñoom ñaar la coalition Benno Bokk Yaakaar ak la coalition Idy 2019 lu Idy président Idy Seck ñoom ñoo gën a majoritaire ci dëkk bi. nga xam ne boo boolee électorat yi day doon quatre vingt cinq pour cent. kon ñooñu noonu nag war na yell na ñu booloo ànd travailler pour l' intérêt du Sénégal te mën a mettre seen i ambition politique euh, bàyyi kon ndëm mu ndëgëndiku ba nga xam ne jafe-jafe yi réew mi toll ñu mën cee génn su ma ko waxee daal de manière euh, ramassée mën naa ne loolu moom mooy li gën a sabab. dugg président Idrissa Seck ci mouvance présidentielle bi. projet Serigne Saliou Gueye euh, yaa ngi yeewoo bi diwaanu biir gox bi Pikine ak li ko wër fan ngeen toll avec vos militants au niveau département de Pikine est-ce que yéen a ngi waxtaanee euh, sur la situation politique yéen a ngi remobiliser vos troupes pour préparer les autres échéances yi ñuy séntu. waaw waaw département Pikine euh, ni nga ko waxee ñoo ngi góor góorgóorlu ñoo ngi liggéey di xool nan lañ gën a mën a def ba parti réew mi gën a mën a amaat représentativité ci biir département bi mm. parce que comme que parti politique moom lool la ambition bi c'est de conquérir le pouvoir ci loolu noonu la dox à travers les les différentes élections yi ñuy dem mm. comme lu mel ni élection locale élection législative ak élection présidentielle mais fi mu toll nii fii may waxee yow directive xam ne moom mooy li président Idrissa Seck joxe ñu gis ko ñu ñëpp ñu ci yëngu mooy ñun ñëpp ñu maaseenoo ànd xees ñu max mii nga xam ne moom moo nekk ci réew mi. Hmm. moo tax fi mu toll nii lépp lu jëm ci wàllu politique yitteeluñu bu baax a baax li ñu gën a yitteel rek mooy jafe-jafe yi Sénégalais yi di dund ñu fexe ba jafe-jafe yooyu saafara parce que président Idrissa dafa am lu mu gën mooy balaa ñoo tal xëccoo balaa ñoo tal xeex faaw ñu góorgóorlu ñaan jàmm am ba noppi te fi mu toll nii Sénégalais yi pàcc boo jël rek. jafe-jafe yi mbas mi ñoo ngi koy santé bu baax boo demee ci secteur informel bi mbas mi indi na ay jafe-jafe ndax heure de travail yi wàññi nañ ko te loolu lépp boo xoolee état bi tegu ko ci coobareem ngir def ko ndax gouvernement bi dañuy toog di am ànd ko kër docteur ñu xam ne lu ñuy gën a mën a limiter les déplacements ci la ñuy gën a mën a limiter la propagation du virus kon ñu en tant que ay acteurs politiques en tant que ay citoyens sénégalais di ñu yitteel jamono ji ñu toll mooy ñu ànd xeex mbas mi comme ni ko président de la république di defee. Euh, Macky Sall. benn question lay posé monsieur euh, Sëñ Saliou Guèye euh, Pikine bari nay jafe-jafe ndaw yaa ngi taxawalu ñàkkum liggéey y a des diplômés qui chôment pourtant le président Sall avait promis beaucoup d'emplois pour cette jeunesse surtout à Pikine yéen seen liggéey si taxawalu yéen sa biir gox a Pikine Nord yan jafe-jafe ngeen jànkuwuteel sur le plan de l'emploi sur le plan du chômage. est-ce que gis ngeen seen bopp si biir politique si euh, l'actuelle politique gouvernement. waaw jafe-jafe yi moom yi ñu jànkuwanteel Pikine Nord du ma ne sax Pikine Nord rek lay doon mais dama koy wax ci département Pikine yëpp ak ci réew mu Sénégal yëpp boo xoolee question bu jëm ci employabilité de la jeunesse question la boo xam ne bu intéressé le président de la République la ndax bi mu ñëwee ba léegi ku ci ne yaa ngi gis ay programme yi nga xam ne jël na ko ngir fexe xool ndaw ñi nan lañu leen di utalee am xëy. waaye xëy googu dafa am lu ko jiitu te ñun ñu gëm ko mooy il faut que ñu am une jeunesse instruite il faut que ñu am une jeunesse très bien formée mm. ba nga xam ne dina gëna a mën a répondre aux normes euh, du travail nga xam ne marché euh, travail bi dafa am ay normes yu muy laaj mm. loolu moom moo gën a nekk vocation bi nga xam ne actuellement ñun am nañ ko di ci liggéey mm. boo xoolee à travers 3FPT ñoo ngi mayee ay bourses di gën a jàppale jeunesse bi pour ñu former leen waaye yemuñu ci am na yeneen structure yoo xam ne taxawal président taxawal na ko ñu ngi ciy góorgóorlu pour gën a xool ndaw ñi nan lañ leen di utalee liggéey. bëri na ay deer ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye daal fi mu toll nii jàpp leen ne question la boo xam ne bu intéressé la. Mhm. gouvernement bi te lu intéressé président Idriss Seck ndax bokku na ci. Euh, bi muy def déclaration euh, biir CS bi ñu koy installé li mu njëkk a wax mooy xool nan lañ mën a réfléchir. Mhm. ba immigration euh, irrégulière bi mën a arrêté. fexe ba jeunesse bi ndaw ñi mën a am xëy am ci lu ñuy yëngu. Mm-hmm. ndax ab réew ndaw dafa bokku ci parti bi ëpp mm-hmm. solo. Mm-hmm. bi mën a euh, bokk ci développement réew bi moo tax ndaw ñooñu bu ñu amul liggéey rek mën naa indi ay jafe-jafe moo tax tey fi may wax ak yow sax euh, biir CES. am nañ euh, mooy première session ordinaire boo xam ne ñoo ngi koy def. Mm-hmm. te président Idrissa ak ay naataangoom yi muy liggéeyal ñooñu war a réfléchir ci immigration boobu noonu waaye réfléchir aale ci employabilité de la jeunesse. Mm-hmm. te yaakaar naa ne ni mu ci sumb di ko liggéey bis bu ñu yàlla dimbale ba mu sotti. ndaw ñi danañ ci gis seen bopp bu baax ndax moom ndaw rek ñoom ñoo ko ñor comme ni mu ñoree président de la de la république ci li ñuy ko yaakaaree rek di ñaan loola am mooy ci ak dal ak jàmm ndax lépp rek ci ak dal ak jàmm ci la xaj waaw loolu mooy ci li ma woon rek que ni lépp ci jàmm lañ ko mën a def ndax lu ñu bëri bëri xalaat bëri xam-xam bu ndaw ñi daw du ñu mën a liggéey li nga xam ne moom la ñu yéene liggéey ñu xam ne nguur gi gouvernement bi fi nekk ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey yëpp amul benn gouvernement boo xam ne day nekk ci am réew te yittey réew ma du ñu ko soxal. Hmm. loola euh, du du du doon gouvernement kon fi ñu toll nañu xam ne li yitteel président de la république yitteel euh, euh, président conseil économique social et environnemental di président Idrissa Seck moom moo yitteel ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal yépp ñuy liggéey au sein de la coalition Benno Bokk Bokk Yaakaar ngir ànd xool nan lañ gën a mën a def ba ndaw ñi mën a am ci lu ñu jàpp former leen lu ngir bu ñu paree mën a am ay jumtukaay yu ñu liggéey loolu moom ñoo ngi ci dalalaat seen xel bu baax. beneen question monsieur Serigne Saliou Gueye yéen a dem seen émission coulisse politique fii ci Salam Vision dalal Serigne Saliou Gueye di ndaw boo xam ni euh, militant euh, réew mi fi diwaanu Pikine ak di ko wër euh, Serigne Saliou jëm si élection gox-goxaan yi yàgg nañ ko reporté ultérieurement par le président de la République. Mm-hmm. yi bare ñu ngi koy naññi mm-hmm. élection locale yu yaakaar ni naam. yéen est-ce que am fii ci Pikine. waaw élection locale yi moom comme ni ko Sénégal yëpp dundee dëgg la coow li bëri na ci ci rapport yu bëri yi nga xam ne def nañ ko ci hmm. waaye loolu lépp dafa am lu ko waral hmm. te souvent acteur opposition bi daf ci bëri ñoom bu ñuy génn di wax du ñu leeral Sénégalais yi dëgg-dëgg mbir mi li xew boo xoolee élection yi am nañ calendrier républicain boo xam ne dañ ko war a respecté ñun ñëpp dañuy ñaan pour ñu respecté ko mais dafa am lu ko waral ay situation yu exceptionnelle day am bi ñu jugee ci élection présidentielle dafa am contentieux boo xam ne dafa juddoo ci élection présidentielle dialogue national bi ba ñu ko wootee moo am dialogue politique ni ko président Idrissa waxee moom moo fay contentieux bi juddoo ci élection yi opposition bi dañoo demandé woon à ce que ñu def ab audit ci fichier électoral parce que jàpp nañ ne ñoom fichier électoral bi ñu demee élection fichier bi dafa am ay rëkk-rëkk yu ci nekk bi ñu ko soulever question boobu ci dialogue bi président de la république ñu daal di nangu ko mu doon accord boo xam ne am nañ ko hmm. président de la république gis ngeen jéego yi nga xam ne dox nañ ko ci jël nañ euh, cabinet expertise boo xam ne danañ ñëw ay experts yu war a ñëw pour euh, def auditu fichier bi. Mm-hmm. Mm-hmm. actuellement commencé nañu liggéey bi nee nañ ci diiru ñetti weer la. war a foofu doogu ma nag noo gisee par exemple aujourd'hui mm-hmm. le président Sall di recruter par exemple des experts qui viennent de l'étranger di saytu suñu fichier électoral pourtant am na Sénégal yoo xam ni am nu ñu xam-xam boobu am nga yaakaar est-ce que am nga yaakaar si euh, experts yooyu. waaw am naa ci ñoom yaakaar euh, pour diverses raisons bi ci boo xoolee Sénégal dafa am ñun ñu baaxoo xëy na bu président de la république jëloon rek ñun nañu jël experts yi nekk ci réew bi mm. bu defee nit ñi mën nañu wax ne waaw dafa am ay rëkk-rëkk yu ñu ci dugal ay digg yu mu ci defat pour bëgg mbir mi bañ a jaar mais bu ñu jëlee des personnes mm. indépendantes ah ñoo xam ne dëkkuñu ci réew mi mm. ay seen xam-xam lañ leen ràññee ràññewuñu leen ci politique ñooñu bu ñu leen wooyee pour soxla seen xam-xam dañuy rafet njort ni liggéey ba ñuy liggéey dana war a euh, jaar mm-hmm. te liggéey boobu it daanaka ñëpp dañ ciy mën a teg seen bët du doon liggéey boo xam ne dañ koy def président daf koy def en catégorie wala dara mm-hmm. mais président yoonam du si ne mm-hmm. euh, experts yi dañuy liggéey seen liggéey bu ñu ko liggéeyee acteur politique yi tamit dañuy marché doo d' accord gis ne fichier bi nañ ko bu amee rëkk-rëkk rëkk-rëkk yi dindi nañ ko ba ñun ñëpp ñu am consensus ci fichier bi. Hmm. bu boobaa ñu doog a xool kañ nañuy programmer élection locale pour mën a dem parce que képp kuy acteur politique. Hmm. ni ma ko waxee woon sànq rek parti bi moom benn ambition rek lay am muy conquérir le pouvoir. Hmm. waaw moo ak élection yi nga xam ne moom la ñuy jaar ba àgg ci présidentielle kon ñun ñëpp yàkkamti nañ élection am bu ko defee ñu mën a dem dagaan baatu askan bi ci gën ci euh, gox goxaan yi suñ borom daal di leen may ndam ba ñoo ñu mën yor gox goxaan yi loolu moom mooy sunu sunu monsieur Serigne Saliou Gueye beneen question moo lay posé la suñu tey am na Sénégal yi bari yoo xam ni ñoom gëmuñu euh, ces doses de vaccin euh, yow tey est-ce que yow en tant que sénégalais en tant que euh, jeune leader de réew mi am nga yaakaar si vaccin yi parce que Sénégal yàgg na ñaxtu c'est pas la première fois man je me a on très jeune dañ ñaxtu ñu bari gëmuñu ko ñi gën nañ ko gëmuñu ko lan mooy seen analyse si moom. waaw am naa ci yaakaar bu baax parce que li tax ma am ci yaakaar mooy du ma dugg sax ci côté politique. duma duggu ci président liggéey bi mu ci def ministre de la santé yooyu yëpp duma ci taxaw mais même bu ñu amul confiance bu fekkee jàpp nañ ñu war ñu mën a am confiance ci leader politique yi. mais war nañu mën a am confiance ci suñu système médical mm-hmm. suñu système sanitaire mm-hmm. ndax ay borom xam-xam lañ yoo xam ne ñoom ñooy daje di ci prouver mel ni professeur Seydi ku mel ni docteur Bousso ak ñeneen ñi a xam ne ñoo ngi ànd ak ñoom yëpp di liggéey mm-hmm. docteur Marie Khemesse Ndiaye rek waaw parce que ñooñu boo xoolee dañuy def décide bi na xam ne tey moom mooy question bi yitteel adduna bi yëpp. Mhm. bu leen wóoroon ne vaccin ñëw am na ay jafe yu mu mën a indil Sénégalais yi duñu mës yi ñu koy def parce que ñoom dañoo am ak ay njaboot te ñoom ñi koy diggee ñoom ñoo ci jiit ku mel ni ministre de la santé ko ci jaajëfal ci taxawaay bi. ñu tey moom moo joxe sànq RTS wane na ko mu joxe exemple daal di doon Sénégalais bi nga xam ne moom moo njëkk a kon yaakaar naa ne loolu war naa mën a daral xëy nit ñi sénégalais yi encore une fois nañu bañ a déglu caaxaankat yi ñi nga xam ne dañuy jël seen i combat politique hmm. di ko bëgg utiliser pour xeexee ko hmm. euh, gouvernement bi di gëmloo sénégalais yoo xam ne amul loolu ay caaxaan la képp koo xam ne euh, ci cible yi nga bokk na nga góorgóorlu fexe xam nan lañuy dem ñàkku jee nga dem ñàkku ji te ñu ñaan yàlla suñu borom dimbali ba mbas mi mën a dem ñu man a delluwaat ci suñu yite te ñu bañ a yaw ci ñàkk yi rek ndigal yi nga xam ne kilifa diine joxe nañ ko ku mel ni sëñ Muntaxa ci kaamil yi nga xam ne mu ngi koy jàngul ah. ku mel ni sëriñ Babacar ci sarax yi nga xam ne digle nañ ko yooyu yëpp nañu maaseeloo ak hmm. kilifa diine gu mu mënti doone hmm. jëfe ko boole ñaar ñaan suñu borom ak jëfe ndigalu kër docteur yaakaar naa ne bu ñu ko defee suñu borom mën nañoo dimbali mbas mi mën a dellu ginnaaw monsieur Serigne Saliou Gueye euh, ñu ngi waajal nag affaire dans trois c'est la prochaine élection présidentielle 2024 te yéen a ngi gunge njiitu réew mi le président euh, le réew mi parce que ñaar ak ah, yéen di bokk ngeen tam déjà dans la mouvance présidentielle da ngeen fas yéene gunge le président Sall en ba euh, da ngeen fas yéene demal seen bopp. waaw question wu politique xam naa ne yaa ngi may junj ci coow troisième mandat yooyu waaye ñun dafa am lu ñuy woowee tey jii discipline boo xam ne dañu ko am ñun les les les partisans. Euh, de réew mi ñun ñi ànd ak le président Idriss Seck ak ñi ne même ci la mouvance présidentielle. président de la république moom mooy suñu kilifa. ginnaaw moom wax na euh, ñëpp di ko dégg que ni su ma sañoon lépp lu jëm ci troisième candidature question boobu noonu ngeen bañ koo aborder. kon ñun fi ñu toll wax dëgg yàlla ni ma ko waxee rek président Idriss waxi ay politique jamono ñu toll ñoru ko. moom li ko ñor rek mooy jooylu jafe-jafe yi na xam ne réew mi moom la ñuy dund mm. parce que njëkkeewu ko tey mm. waxtu bu réew mi nekkee ci ay jafe-jafe rek moom day fàtte ay bëgg-bëggam ngir gën a góor góorgóorlu ci Euh, jooyanti jafe-jafe yooyu ndax moom bëgg-bëgg yi moom jàpp na ne bis bu ko ci suñu borom mayee ndam rek day doon intérêt pour la population sénégalaise ñun ci loolu noonu dañuy nekk di ci yëngu bis bu waxtu ñu àgg ci wàllum tànn war a jotaat bu boobaa dinañu dégg le président sa Seck mu prononcé wu. Hmm. dinañu dégg le président Macky Sall mu prononcé mais fi mu toll nii. tolloowuñu ci waxtu bopp li may fàttali rek mooy ñii wax ñëpp coow li bëri na mais sénégalais yi nañu xam leen rek. Mm. ñu muy président Macky Sall muy président Idriss Seck ak ku mu ci di doon ñu bëgg réewum Sénégal lañ ñu jàmmi Sénégal ñor lañ kon yaakaar naa ne. benn coow jortu ma ne dina war a mën a am ci réew bi bu góor góorgóorloo dal te ànd liggéey xeex mbas mi te ñaan euh, mandat bi président de la république nekk ñu góorgóorlu ñaan yàlla mooy ñu ci ndam parce que mbir bi du président Macky Sall. Mm-hmm. c' est pas Macky Sall qui compte. mais c' est l' intérêt de euh, des mm-hmm. sénégalais. yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci bitim réew. loolu nag bis bu ñu góorgóorlu ba suñu borom may ñu ci ndam bu ñu tollaatee ci waxtu tànn nag président Idrissa Seck danañu ko dégg dana prononcé wu sénégalais yi dinañu xam lan mooy position am. voilà une dernière question sëñ Saliou euh, Guèye. Covid bi nay jafe-jafe sur le plan économique euh, ñu bari ñàkk nañu seen i emploi day gën di jéggi day day gën di métti euh, noo gisee mbiroom tey Sénégal yi bari surtout la jeunesse euh, certains cas de certaines sociétés qui ont perdu beaucoup d'emplois monsieur Guèye waaw loolu d' abord ñoo ngi tàmbali ci di euh, euh, maanaam bokk ak. masawu coono masawu coono. Euh, ñi nga xam ne loolu dal na leen. Mm-hmm. muy entreprise yi nga xam ne am nañu ay difficultés jamono mm-hmm. yu ñu toll. ñi tëj surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur informel. parce que dama ci diisoo lu ci ëpp. Mm-hmm. sama responsable. bu ñuy wax Arouna Niang donc wax dëgg yàlla ci responsable politique yi nekk Pikine Nord parce que moom dafa bokk ci ñi yëngu ci secteur informel ci réew waaye da ngay gis ne question boobu question la bu bu leen yitteel te président Idrissa Seck du ko yitteel la ndax boo xoolee ba bi ñuy dem ci élection présidentielle sax secteur informel bi amoon na taxawaay bu am solo ci biir programme di wax ne rek jafe-jafe yooyu entreprise yi di dund masawu nañ leen ci doon xam ne Sénégal rek waaye réew yi ci àdduna bi yëpp réew économie yi ëpp doole économie africaine yi muy lu mel ni États-Unis nga lu mel ni euh, Union européenne partout partout dans le monde dañuy gis ne conséquences yi Covid bi am ñoo ngi koy sentir ci côté économique ak ci côté social ak ci lépp. encore une fois loolu moo war a gën a tax ñu war a gën a góorgóorlu gën a boolowaat suñuy force ngir mën a jàmmaarloo Covid boobu noonu. waaye jàmmaarloo moom it ci fexe. Mm-hmm. ba ñi ci loolu suñ borom dimbali leen ba ñu mën a. seen économie waa ñi nga xam ne mooy secteur informel bi ñu gën a mën a amaat euh, économie bu baax ci dina xam ne ñoo ci yëngu ak entreprise bu mu mënti doon. Hmm. te loolu ni ma koy waxee rek ci ni ñu ko mën a defee rek mooy ci dal ak ci jàmm. Hmm. te ñoo xam ne gouvernement bi fi nekk loolu dafa bokk ci ay priorité parce que bi Covid bi amee ku ne gis nga président de la taxawaay bi mu am. Hmm. à travers plan de riposte bi ñu bi ñu bi ñu génne. Euh, gis nañu subvention yi nga xam ne ak mesure d' accompagnement yi ñu jëloon économique yëpp social jàppale yenn entreprise yi jàppale yenn ménage yi ci euh, électricité beeg ak mm. dundu géeg yëpp loolu lépp day ay mesures yoo xam ne day wane ne rek gouvernement bi xam nañu jafe-jafe réew bi te ñoo ngi ciy góorgóorlu ci seen kéem kàttan waaye na sénégalais comprendre te xam ne rek li ñuy dund neexul. bu ñu sañoon situation bi jeex ba ku ne delluwaat ci sa yitte waaye mbas la moo xam ne laalu réewum Sénégal la. dafa laal adduna bi yëpp. te faaw ñu boole suñu doole ngir mën ko xeex te ñaan yàlla may ñu ci ndam. kooku moo doon Serigne Saliou Gueye di ko gën di ko sant euh, Serigne Saliou balaa ñuy tàggatoo le dernier mot à tous les téléspectateurs de Salam Vision. waaw maa ngi euh, santaat bu baax waa Salam Vision ci opportunité bi ngeen ma. may ba mu mën a jàkkaarloog Sénégalais yi ngir joxe suñu xalaat ci jàng li xew ci ci ci réew mi. Hmm. loolu moom ñoo ngi leen ciy sant di wax ne euh, ñoo ngi leen di gën a ñaaxaat te di leen ñaanal parce que du ñu ñëwee suñu xel dal na parce que jàpp ñu ne bokk hmm. ngeen. Hmm. ci ñenn ñi nga xam ne actuellement ñoo ngi def incitation à la violence wala di aborder yenn question yoo xam ne. wax dëgg ne yàlla amalum njëriñ askan wi. média lii rek lay jëriñ. fu ñu toll nañu fexe ba ku ne waaw juste et vrai. looy si def nga seet ci sa diggante mm-hmm. yàlla. te bañ cee ragal dara. Mm-hmm. parce que wax dëgg jarul ragal. Euh, dégg nañ coow li menace de mort yeeg yooyu yëpp dégg nañ ko. Mm-hmm. waaye yooyu yëpp amul solo li am solo rek mooy ñun ñun ñoo tànn ngir doon ay acteurs. politique doon ay homme public faaw rek ñuy nangu yenn yi nga xam ne lépp lu ñuy wax rek nañu seet suñu diggante yàlla ñu wax ko te ñaan yàlla dool di jàmm ci réew mi Salam Vision it suñu borom dimbali leen ba mu doon Euh, presse bu mag doon mm. euh, ay télévision yoo mm. xam ne da ngeen gën a mën a mm. mottali seen liggéey ci kanamu askan bi jërëjëf kooku ma doon Serigne Saliou Gueye di ko gërëm di ko sant nekkoon euh, un membre jeune cadre de Rewmi dans la banlieue de Pikine ak li ko wër ñu doon waxtaanee jafe-jafe Rewmi la situation politique le dialogue politique l'affaire Idrissa Seck di ko gërëm di ko sant mu doon à la présentation Cheikhou Sakho dans cette police politique mbokk jàmm ak jàmm beneen yoon incha allah